li may wax rek mooy euh, ren euh, ku xool Dakar nu mu mel xam ni circulation bi métti na donc dama wax ministre bi ne ko circulation bi métti na wante am na ay ponk yoo xamee ni que war nañ ko war a mën a def wala ñu war ko mën a ubbi parce que booy def travaux yu mel nii da ngay seet ay solution yoo xam ne mooy permettre nit yi au moins ñu mën a circuler normalement parce que circulation bi métti na xale yi seen jàng metti na parents yi sonn nañu ba nga xam ne que seen doom yi bu ñu ñibbi si kenn ku ci nekk sa fit du toog tant que sa xam ban heure lay képp ku dëkk Yoff wala ku dëkk côté VDN wala ku dëkk côté truc yaa ngi toog ci nen donc loolu moo tax ma ne dafa am ay affaire yoo xam dafa am au niveau de ay tali yoo xam ne ça existe yoo xam ne dañ ko waroon defar yoo xam ne Promoville moo ko war defar parce que Promoville mi ngi liggéey dans west Foire commencé na di liggéey dans west Foire depuis deux ans xëy na dañu arrêté woon travaux yi mais ba léegi am na am na programme boo xam ne c'était prévu donc ma ne au lieu que ñuy gën a insister sonna nañu defar ci ci programme boobu ñu prévoir pour west Foire

boko faté kay ak ay mbir nit ñi duñu xam sax ni amna amna télé bu fay jaar mané ne ko foofu tamit la boo ni war nañ ko mun défat nga xam que dana permettre circulation bi gëna a oyof ci nit yi nit ñi mëna am am accessibilité bi gëna gaaw pour mëna a dem rejoindre sen ay seni kër donc loolu day dimbali parce que travaux ça va durer presque 18 mois wala 12 mois donc loolu aussi da du nekk loo xam ne day donc ñu ubbi leen rek buñ ko ubbi rek dafa tali même bu dé télé wax boo ko même bu fekkee defuñu ko wuñ ko sax mais ñu ubbi ko rek mu nek télé wax ni ñàkk nañ ko rek automatiquement dina dimbali circulation bi dina permettre nit ñi mëna circuler normalement donc loolu laa leen wax déjà ci promobile bi ci des mané ko surtout Tivaouane surtout Tivaouane aussi dama ko wax parce que ça fait deux ans ñi ngi def ay programme si promoville Tivaouane Exercice dëkk bu mel ni Chérif Lo dëkk bu mel ni Koul Mewane Pambal du dëkk yooyu yëpp dañu am ay programme yoo xam ni ville dafa am yum ci waroon def mais ba léegi defuñu si dara biir Tivaouane si boppam muy ville de Tivaouane ville sainte la dafay am gàmmu di am manifestation chaque année 33 villages yi nga xam ne moom la ñu rattaché ci Tivaouane amu ci benn village boo xam ne am nga tali ay tali suuf la c'est ay tali ay ay tali sablonneuse la donc yooyu aussi dafa nekk ay problème yoo xam ni il fallait que ñu poser ko pour ñu xam ne que priorité la parce que chaque année événement ya fay am li muy drainer ci monde war nañ mën a fexe ba ñu am accessibilité pour mën a ñëw ci ville sainte bi sans ñu am problème mais chaque année il y a tout le temps des problèmes te loolu aussi day nekk loo xam ni il fallait que ñu poser ko pour que ñu xam ni que nit ñi ñi ngi xool mais bëgg nañ aussi ñu defar loolu lampadaire yi aussi dama si wax parce que lampadaire c'est bon mën nañ ko defal ci tali yi nga xamne mo nek ci grand mais buñ ko defal c'est problème les dans les villes te ville bu melni ni nga xamne day am gamu nga lampadaire nga ñëw dugg ci bi période du gamu bi dëkk bi lëndëm ça devient un problème donc loolu ñu wara éclairer dëkk bi yëpp bu yëpp bu mu jeex mais dëkk bi benn partie bi éclairé na benn partie bi c'est pas éclairé do comprendre te les gens restent pendant longtemps ba pare ainsi de suite donc day am insécurité ci pendant moment bo xam ne que y a presque millions wala 3 millions de personnes yu fay nek mané lolu loolu aussi

développement rural bu ñu réussir autosuffisance en riz parce que PDC moo si jàpp parce que moom matériel bi nga xam ne moom la ñuy def dans le dans le monde rural au niveau de la culture yi mbata bi yëpp PDC moo ko jëndal donc loolu tamit benn man leen aussi il faut ñuy def ay service entretien parce que bu ñu amul ay service entretien infrastructure ak ouvrage yi ñuy def yëpp dootul amati njëriñ parce que bu fekkee ni que li nga liggéeyoon daaw sàmmloo ko ba mu yàqu balaa ngay liggéeyaat leneen doo yokku donc mané kon entretien bi entretien war nañ ko gëna pousser ba nit ñi mëna entretenir forage yeeg machines yeeg machine wal yeeg yëpp dafa ñu def ko ba nga xamé ni nit ñi luñ ci jënd dañuy doli mais duñu duñu remplacer xam nga doli ko remplacer du ben doli moy ki nga xamni ne defal nga ko mu baax nga jënd yokkaat keneen am keneen am keneen am remplacer moy ki nga joxaloon ki ki nga joxoon li nga jox dafa yaxu ba baaxul nga remplacer wat ko lo amul njëriñ donc ça fait mel comme les mêmes personnes rek lañ defal loolu aussi

pour que nous sachions au moins ça ça concerne les les populations ça ne concerne pas quelqu'un d'autre